yóbbaale leen ma yóbbaale yóbbu sama kan damay ànd ak moom boo leen may arrêté ngeen arrêté ma mais du ma ko bàyyi noonu du ma ko bàyyi noonu yeneen yi bu ñu defee seen événement la bu ñu def caravane boo leen ko arrêté général may ma Quitte le véhicule de la gendarmerie. Oh, capitaine, capitaine. Capitaine. xëccal na kii. kii sama gan la. président. président bu ñu la yóbbu dama lay topp ba foofu bu dee si biir prison la damay ànd ak yow bu dee biir prison la damay ànd ak yow Juste maintenant, capitaine, dites-moi pourquoi vous m'arrêtez. Je vous l'ai déjà dit. Non, vous m'avez pas dit. Vous me Non, vous m'avez pas dit. Non, vous m'avez pas dit. Vous vous laissez lever. Capitaine, vous vous faites doucement. Non, non, non. Allez, bàyyi nga yëg. Allez, bàyyi nga yëg. Non, non, non. Allez, bàyyi nga yëg. Non, arrêtez-moi ça. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est bon, c'est bon. Là, le bon. Non, non, non, non, je, ne crée pas d'attroupement. Non, attroupement interdit. C'est cet attroupement. Non, non, non, Quel, attroupement Celui de Diaroumé. C'est moi qui l'ai organisé. Bon, c'est les informations que j'ai. Non, non, on va vérifier ça. Est-ce que c'est moi qui l'ai organisé C'est que j'ai vérifié. Allez-y dans le Je demande si c'est moi qui l'ai organisé. Allez-y dans le s'il vous plaît. Non, mais je, vous l'ai dit deux fois. Non, je, vous, pose la question. Vous êtes en état d'arrestation pour attroupement interdit. Non, mais quel attroupement Vous y étiez. Quel attroupement André parce que c'est parce que j'y étais que vous m'arrêtez. Non. Non, non, non, non, non, non, capitaine, oh, capitaine, capitaine. J'étais, à, ce rassemblement, vous avez participé à cet attroupement. Et, allons-y, on va arrêter toute la population de Kandiou. Ah oui euh, vous avez vu, hein C'est le, c'est le préfet, c'est le de Sédhiou qui a donné des instructions à la gendarmerie pour m'arrêter.